nga xamante ne dañu ñëw waxtaanee wàllu réew mi am ci sentiment de contentement am ci aussi euh, engagement boo xamante ne dañ ko jëlaat muy benn euh, source nouvelle ñu war a reprendre euh, liggéey bi bi nga xamante ne génne nañ ci pandémie bi nga xamante ne moo doon Covid 19 ñi ngi ci biir sax mais xaw na wàññeeku ba mu permettre ñu ñu mun a ñëw assemblée nationale. député yëpp mun a toog siéger pour défendre euh, les les les activités et les besoins des populations mu nekk lu ñu war a sant yàlla war ci gërëm yàlla bu baax ndax teew bi nga xamante ne teew nañ ko fekkee ko te bokk ci ñi tey ñi nga xamante ne mun nañoo taxawu Sénégal euh, di jaale ñi nga xamante ni itam bokk nañ ci ni fi jóge euh, boobu ba léegi ci mbas mi ah di leen ñaanal yàlla. yàlla xare leen aljana mais di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo des ci lalu hôpital yi yàlla wéral leen ñu bokk ci ñi nga xamante ne bu ëllëgee dañ leen di wàññaale ci population bi nga xamante ne moo nekk ci Sénégal ci bis bu ñu tolloo ci defar euh, li nga xamante ni mooy. xam nga comme ni ma ko waxee rek xam nga budget bi euh, euh, Amadou Hott moom moo koy diriger finance yi Abdoulaye Daouda Diallo moom moo koy dirigé man nag ma gis ci. Euh, euh, monsieur ministre ministre Abdoulaye Daouda Diallo nit ku disponible nit ku bëgg liggéey parce que xam nga nit moom boo ko fréquenté wul mënoo ko xam mais wax dëgg yàlla day toog taxawu dina bëgg à chaque fois loo ko posé problème ci budget bi mu tontu la ci ci ni nga xamante ni moom noonu la ko yaakaaree mais man ma saytu jàngat ni budget bi am na ci loo xamante ni jarul ñu ko ciy dugal muy ci lu bëri ndax yokkal bi ñu yokkal CSE nga xamante ne. Euh, euh, mooy euh, conseil économique social et environnemental ah parce que CSES e rek nga mën a CSES e e parce que boo waxee CES moo maanaam am na leneen lu mu nuróol ci dëkk bi ba ñëpp jàpp ni CSE la mais noonu mooy lecture bi rek donc ñu wax conseil économique social et environnemental ñu yokkal ko loolu ci pour xaritoo la loolu pour yokkal udiri sa Seck ci poosam lu mu ci war a def la parce que moom gisuñu lenn lu mu mën a justifier li ko indi ci appareil gouvernemental bi lu dul quelque chose en mettre en mettre en poche xanaa gisul woon loolu bërki démb bi nga xamante ne ñoo ngi wax naan réew mi xale yi ñu digoon di wax naan ku amul liggéey yëkkatil sa loxo amuñu liggéey loolu gisu ko woon dafa déposé woon candidature am wax ni Macky Sall def fi dara suba def fi dara ngoon def fi dara guddi donc moom dafay taxaw pour combattre Macky Sall mu jóge fi ñëpp nag ànd ceex moom ndax ku nekk xam na ni réew mi ne pèse pas 5 pour cent de la population sénégalaise mais ñëpp dañu ànd ak moom ba mu si tey fi nga xamante ni foofu la si ba mën a jël deuxième ci euh, élection yi nga xamante ni ci la ñuy jóge ma yaakaar ni loolu mooy war sénégalais yi loolu mooy trahir sénégalais yi loolu mooy xool sénégalais yi nga xamante ne dañu amoon ci yow yaakaar nga euh, jàpp ci war leen ba tax na tey sénégalais yëpp am beneen gis-gis ci politicien te loolu man rafetlu moo ko xam nga wax jooju moom waxam la moom la engagé mais ñun xam na ndax nit ñi dañoo am éducation wala dañoo ñàkk yaakaar te loolu duñ defaaree défendre wuñ ko fii mais fa nga xamante ne am nañ ca yaakaar bu baax man dama leen ne nit ñi jëmuñu bar sàq jëmuñu barsàq de barça lañ jëm barsàq lañ jóge Sénégal moom mooy barsàq réew moo xamante ni jeune bi fa yendoo yeewoo di fa xëyee amul espoir fu mu xëyee mën fa liggéeyee am fa dara au moment où le budget de l'Assemblée nationale ñu ko yokk di ko jox nit koo xamante ne nanguwul ku ko saytu di ko jox nit koo xamante ne nanguwul ku ko xool boo ko xoolee sax mu mere la jël jaaseem wala yetam war la ni assemblée bi maay président bi boo ko waxee ci biir commission ni nañ leen saytu parce que rajo yi ci rajo yi nga xamante ni moom la ñuy waxee mi micro yi baaxuñu du ko defar moom Moustapha Niasse euh, amuñu écouteurs yu baax. xam nga pour taafantalaayoo pour taafantalaayoo ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci assemblée bi ndaxtey loo ci wax. ñu ne ñun ñi ngi liggéey ci assemblée bi xëy na bii député amul ci ñun yërmande non non noo ñun député yi am nañ ci yërmande am nañ considération ci biir ci xale yi nga xamante ne ñoom ñoo fiy liggéey bu ñu sañoon kenn ku ci nekk sax dañ lay jëndal oto d'ailleurs nga am ko ndax nga mën a liggéey si correctement. lan mooy sa kàddu bu mujj rek ci bésu tey bi remercier sénégalais yi ci considération bi ak déglu bi ak xëy na euh, espoir bi ñu porté ci sama voix bu ndaw bi ndax mënuma fay sénégalais yi dañ may déglu dañ may seetaan man sax yenn saa yi léegi am naa tiitu wax ci caméra moo waral émission yu bëri soo ma si invité. ma ragal a dem parce que damaa bañ décevoir sénégalais yi c'est que damay bëgg sénégalais yi di am si man satisfaction damay bëgg li may wax ma seet ko seetantal ko déglu ko dégluwaat sama bopp ba pare doog ko wax ni ngeen ma bettee tey defe naa li ma wax neex na leen jërëjëf s'il vous